décision bi muy njëkk a jël nga xam ne lii muy waaj a def su koy def danañ ko ko mën a muñal pour xaar ko mu yegg ca première décision yi na nekk wàññi dund bi mhm. d'abord loolu nañu ko sexal pour ñu may ko temps mu mu def lii ñuy waaj a wax parce que lii muy bëgg a def àndul ak fii ñu toll di xaar xaar boobu day yàgg décision yi muy njëkk jël na ci bokk nu wàññi dund bi te yàlla tax dundi bi cher na ba jéggi ndox mi cher na courant bi cher na décision yooyu na ko jël mu def ko sëri ca ci sénégalais yi teg hmm. léegi nag ñu war a ko muñal nag yi nuy waaj a wax ñu xaar ko ci mu ñëw ci mooy la mooy ñi ngi xaar président boo xam ne day nekk président bu humble ku am humilité ku am modestie donte am na ci lu ci feeñ ci jëmmam luy wane ne moom du nitu puukare foofu lañ koy xaar parce que réew mi fi mu toll ki ko war a defar du nekk nitu puukre du nekk nit ku bëgg àddina du nekk nit ku arrogance du nekk nit ku yëg boppam day nekk nit ku bari yërmande benn ñi ngi xaar ci moom mu yëgal xolam li néew ji doole yi di dund ci réew mii ci jafe ñi ngi xaar ci moom mu nekk koo xam ne ku maandu lay doon ku tëddee njaaxaanaay fas yéene xam ne kumba am ndey ak kumba amul ndey gi Sénégal yi di dund ba bakkan yu bare faatu ci alal yu bëri yàqu ci diggante yu bëri tas ci na yëg ne na tëral maandute goo xam ne xel yëpp danañ dem ci Omar ibnul Abdul Aziz manu xamoon fii mu fekk réew mi tey ci tàqalikoo gu metti ma junj ko léegi ci fase gi am diggante sénégalais yi ak ñi leen di jiite mm-hmm. sénégalais yi ak justice rupture bi ci am bu ko gëna graw la Umar ibnul Abdul Aziz fekke won ba pare defar ko Umar ibnul Abdul Aziz fekkon na ci jamono waxuma nit ñi takliko gi imam yi seen bop boy khutba bay jexal da ngay reub sa yenen bok jullit te li tax nga diko def moy da nga ndortu ni fi suma fi ya suma fi ñaané yalla mu nang ñaano fa soxla de ñaano fa développement de nga ñaan reub sa mbok julit yalla reubule na len ci hal bu toll ni waaye ci yéene bu rafet ci maandoo ci ndimbalu yàllaam mu fexe ba convaincre leen ñoom ñëpp ni leen lii dama bëgg mu jeex ñu nangul ko ko ngir lan yaakaar bi ñu amoon ci moom xam ci moom maandu xam ci moom njub xam ci moom dëggu mu woo leen ci jàmm ñëpp fekk si ko ci man jàpp naa ne Bachir am na chance bu mel nii mhm. ndax bëriwul ay conflit mhm. kenn xamalu ko ay xeex yu mu amoon ak nit ay contentieux yu bari mhm. ñaareel bi ci des ay yaakaar yu bari dafa juddu jëm ci di ko xaar ndax muy ndaw ndaw ñi toog di xaar di yaakaar rupture kon am naa yaakaar dina am luñ ko mën a muñal ñu xaar ko muñal foofu bi ci des mooy li ñu xamoon ci puukare président bu ñu fal ay oto yu rafet oto yu rëy yu cher dund bu cher ay poste yu amul benn njëriñ di créer ay institution yoo xam ne kenn xamul lan la créer yu c'est-à-dire di créer loo xam ne ay milliards yi milliards a fay dem di recruter say militants di leen fa gazé te loolu du dellu waat ci askan wi loolu dañuy xaar mu dindi ko ba mu set wicc ñaareel bi ci des itam mooy mu futteeku ci liggéey réew mi am na lépp dañoo liggéeyul dañuy politique waaye liggéeyuñu ku ci ne boo toogee yaa ngi jéem a xool nan laay lawalee samay banqaas fépp ba su ma soxlaa deuxième mandat mu yomb ma mhm. te mandat li koy maye mooy futeeku liggéey mhm. gëm naa ne bu suuboo ci liggéey te dëggu ci am suuf am ndox am jant waxaguma pétrole ak gaz ak yooyu dama ko jëlele parce que yooyu fu nga lëngoog tubaab bi am xam mais yii kese buñ ci concentré woo ubbi mbay mi milliards yi muy jël di ko sànni ci ay oto di ko sànni ci ay téléphone di ko sànni ci ay luxe ñu dugal ko ci suuf si wallahi xale yi danañu bay ba Sénégal ñetti at képp laa ko may ñu ne suffisance en riz am na fi beneen bi ci des mooy mu fexe tàqalikoo gi am ci nit ñi pour mu suude ko am na benn point bu xaw a sensible mu taxaw ci mooy diggante politiciens yi ak religieux yi mooy suñu këru tarixa yi muy diggante bu sensible boo xam ne mbooleem politiciens yi fi jaar yépp dañoo ñëw utiliser ko politiquement na ci indi rupture mooy demun ci kilifa diine yi parce que dañ leen di jox gëddu kilifa diine déedéet dañu fay dem di uti militant di utiliser seen appareil bi nu yore di leen politiquer di wut seeni nit di ko jegeel ci sëriñ bi pour mën fa am accès di defar seen image loolu na ko dindi bu soxla am militant ci polit ci ci sëriñ si mhm. na séq ak ñoom relation bu rafet mhm. di leen seeti di leen laaj xalaat ñu di ko jox xalaat te soxlawul mu koy médiatiser te bum soxla itam ay taalibeem di leen voteel parce que sénégalais yi wan nañ ko ne ko ñun mën nañoo fal président sans ñu déglu benn sëriñ kon su fekkee ñi ngi bëgg a jëlaat image su sëriñ si tey di leen utiliser di dem ba yegg ci ñoom di ñaan pour ñu defal la déclaration alal ji nga waroon a def ci réew mi nga jël ko def ko fa pour ñoom ñu waxal la lu tax sénégalais yi def li ñu bëgg. Mhm. dama ciy joxe benn misaal moom mantooram ci politique muy Ousmane Sonko nga xam ne moo ko initié ci yenn yi tey ba dugal ko. Mhm. mas na wax benn wax ñoom bu dee loolu gëm nañu ko ñu dugal ko gëm naa ne rupture bii ñuy wax dana am ba xeexoo yi am ci tarixa yi dootu fa am parce que këru diine yi tas nañ ko. Mhm. te dara taxul ñu tas ko lu dul dañu ñëw indi fa benn équipe boo xam ne dafa la fay nekkal di la utal kàddu ci sëriñ bi. pour ñu lay defal ay déclaration yu la favoriser te loolu dafay indi jafeñ-jafeñ ci digënté talibé parce que bo génné ci talibé yi duma leen bo démé ci sëriñ bi dafa téranga mu défé ne li moy xew la wara yegg lobby ba nga fa am di couper lolu ba du yess ci sëriñ bi dama ko mës dégg mu wax ne dama xamul cene bala ko démon wala njaasaan ñaari yi benn la ci bi mu toogee kilifa gi dané ko ñëw na fi dé wayé wax dëgg yalla soxlawuma sax nga jàppale ma ñëwuma pour nga def déclaration bu jëmee ci man wutuma pour nga jàppale ma damaa ñëw pour nga xam ñaar ci man nga xam ne dugg naa ci lii bi ci des mooy nga ñaanal ndax yéen dañ leen a war a protéger te bugguma ngay am foo féete ñu xam ko te yaa uuf ñëpp ma ne lii nite la sëriñ si ñi leen di aaree mooy politiciens yi buñ fa ut ku leen di utal militant nañ fa dem uti fa xalaat ñaan kese doyul da ngay dem indi sa projet nga ne sëriñ bi dama bëgg suubu ci nangam loo ma ciy xelal mais dem rek tàllal loxo ne ko nii mu mel ni sëriñ bi amul xalaat ci am nañ fa xalaat mais ñoom ñoo yem ci ñëw ne ko ñaanal ma mu ñaanal la nga photo ak moom bëgg sax benn déclaration bu mu la defal demal nga gaaral ko projet yi nga namm mu ne la jaaral fii jaaral fii jaar fii wallahi ko ko ciy def doo ko réccu mm-hmm. ñun dañoo ay mag yoo xam ne ay sage lañu mm-hmm. ay boroomi xam yu xam àddina nag mm-hmm. waaye boo leen laajul ñu jàpp seen jàpp mais da nga leen di laaj wax leen fi nga jëm ñu xelal la nga taalaat sa oto génn ndànk dem sa yoon buñ politisé ti kër yi nañ ko bàyyi lépp luy ngombaay ci politique jëm fa na ko arrêté léegi nag jàkkaarlook askanam simmeeku liggéeyal leen moo xam ne sëriñ si li ma séq ak ñoom laaj leen xalaat en tant que ay kilifa ñu jox ma ma sàkku ñaan ñu jox ma ma jàkkaarloog askan wi liggéeyal leen hmm. seen jafe-jafe ci wér gu yaram mu taxaw ci saafara war naa jeex takk ñu yëg ne Sénégal kilifa gu fi feebar ñu yenu la yóbbu la Maroc baa ñu yenu la yóbbu la France loolu bu ci lancé défi mën nañu fexe ba am plateau de santé boo xam ne fii ak deux ans dañuy dégg ñu ne ay waa bitim réew ñëw di jëggaanu di faju si fii lu mën a nekk la am nañu am nañu boroom xam-xam yi mm-hmm. am nañu moyens yi volonté politique bi rek lañ amul gëm naa ne bu ci sooboo mën na nekk mm-hmm. parce que ñoom wane guñ ne dañoo bëgg àddina mm-hmm. wane na ne président boo am bor ñu ngi koy door a gis bokk mm-hmm. def sa déclaration patrimoine yaa ngi fàttali bi passé maa ngi wax ne déclaration patrimoine yi nii nëbb dañ ko war a bàyyi mm-hmm. da ngay def sa déclaration patrimoine ne ko bàcc ci pénc bi ñu gis ko loolu buñ ko ci boolee ñu bëri dootuñ ko def parce que am na ñoo xam ne li ñu denc bëgguñ Sénégalais yi xam loolu nag dafa lëndam mooy man boo ma bëggee dencal sama xaalis ba pare ne ma li ma am doo xam nu mu toll li may joxit bul xam nu mu toll loolu leerul kon ñi ngi koy xaar mu nekk nit koo xam ne bu ñëwee nit ku oyof lay doon nit ku effacé wul lay doon nit koo xam ne soxlawul écran yu bëri soxlawul di dem ci cérémonie tout le temps lim soxla mooy futteeku liggéey dooleel mbay commerce bi sëgg ci jafe-jafe askan wi injustice bi ñu ne Sénégal yi li ñu daj ngir mu falu wallahi na yi exilé wu nañ te injustice donc ko war mhm. mu fexé ba injustice bobu doto amati moy ku fété mhm. ak man lo def mu rëcc ku wul ak man nak lo def bo deful sax ma sosol le dugal la kasso li dañ ko dund mhm. impunité bi tamit batay moy fi ku fi fété lu la neex def té dara du la ci fekk ñu dindi ko bi may jeexalee mooy mu fexé victime yi am mu bañ leen faté balé baxna trop mais nañ def enquête bu ñu toogee ba dal bu ñu toogee ba dal ba installé wu ba pare nañu ubbi enquête ñu xam bakken yi fi dee alal yi yàqu victime yi ci nekk lan moo leen def lii ak lu tax mu am parce que loolu dafay tax noo seulement ñoom duñ ko def waaye keneen ku ñëwati doo ko def parce que da ngay jàpp ne su ma ko defee bu ëllëgee danañ ma topp loolu nag jotewul dara ak fayantoo hmm. loolu du fayantoo waxum fayantoo nañu tracé ku deful dara dañ la bàyyi nga dem sa yoon waaye justice bi war nañ ko xoolaat suñu wàllu sécurité war nañ ko xoolaat mhm. ni ñuy jëflante sunu kilifa diine war nañ ko xoolaat mhm. bañ leen a def ay bouclier politique oh. gis naa politiciens yu bëri sëriñ si la ñu jël def leen ay bouclier politique hmm. mooy sa message boo bëgg mu jàll te boo ko jàllalee sa bopp du jàll nga dem ci ñoom joxeel leen ko te message bi foo pour am ñu fa nekk porter la sa kàddu yooyu yëpp jàpp naa ne ay rupture la war a doon bi ci des nag mooy moomeel gi ñu tubaab yi moom jàpp naa ne seen combat la war doon kenn waxul bu ñu jëflanteek tubaab yi waaye nu fexe ba jëflante bi na ci na ci Sénégal yi di yëg boppam mhm. sëriñ bi ñun ñu am fii ñu fi exploité or te mënuñoo xam lan la or di jëriñ dëkk bu ko am mun te nekk mhm. kon buñ ñu waxee am ngeen pétrole dina leen jëriñ duñ ko gëm parce mhm. que ñi ngi exploité or pendant trente ans te jëriñu ñu dara kon pétrole bi mën nañ ko exploiter ndekante te du ñu jëriñ dara te dara warulu ko lu dul ay contrat yu bon contrat yooyu mu concentré wu ci mu nekk gagnant gagnant sénégal yi di yëg ne pétrole bi mi ngi leen di jëriñ gaz bi mi ngi leen di jëriñ or bi mi ngi leen di jëriñ train de vie de l'état bu cher bi mu wañ yooyu daal jàpp naa ne bu dee taxaw na ci am nañ yaakaar ne. Mhm. sénégal yi danañ ko mën a muñal lu bare bare te rupture dana am allah. macha allah am na solo imam ci liñ koy xaaree. lu bari ci wàllu uh, santé bi uh, ci wàllu diggante mag jëflante mag nit diine yi uh, yaakaar yi tamit ci wane ne waneeguñu luy wane ne bëgg nañu àddu bëgg na àdduna loolu am solo la maa ngi jàngat ci ndax léeg-léeg wax ne li may noppee ëpp li may wax damay toog di liir yàlla may ne ma damay am lecture di di di xool lu bari di jàngat bokk na ci li ma jàngat ma ne dafa mel ne sax ci li ma gis moo gën a placé Sonko ci mhm. doon président mhm. ci circonstance bi mu ñëwee mhm. ndax tey euh, Sonko bayre bi ko topp dafa juraale yu bari yoo xam ne ay nit a ngi ci jafandu di ko wax ci moom am na yoo xam ne ci ay communication lay delluwaat ci yu bari yu mu wax yoo xam ne bu doonoon président dinañ ko delloo si waatal waxam yu dul jeex yoo xam ne buñ ko tegee ñu ne ah kilifa warul waxee nii te fekk dafa nekkoon ci période guerre ak muy guerral lu mu am ci arme utiliser ko dal ci kaw institution bi du ma nangu lii buñ mën a ngeen nangam yoo xam ne période ku tàng di waxee noonu période boobu ku ma àndal da ngay tàccu mais ku toog di am lecture ci communication dag naan ah déet fii moom nii nii nii yooyu ci ku ñuy delloo comme lu ñaan vaar yi danaa ci yoo xam ne en tant que président fi ak deux ans ci kanam am na yoo xam ne danañ ko delloo siwaat ci yenn yi ci gestion yoo xam ne nii dana jur ay commentaire ay commentaire euh, beneen bi am na ci ay dossier waxal na diw sàngam mii loo xam ne la mu ko waxal amul yóbbu na ko ci yoon danañ ko indil ay preuve yooyu dana nekkaat débat buy feeñaat en tant que président buy ñëw ak mbirum dossier Adji Sarr en tant que président dana nekkaat débat luy ñëwaat donte soppeem bi nga xam ne moom dafa xër ci moom yooyu yëpp danaa non non non waaye ci kanam laa wax ci kanam bu demee ba nga xam ne deret yi tàngoon dal na ci biir nguur ak ñi lay opposé ñi lay opposé danañ jël yooyu di ko delloo si waat yu bari di wax <laughs> waaye jomaay yooyu yëpp yàlla dana ko ci sutural <laughs> ba kenn du ko ci tudd doo mën a delloo si ay waxam yu mu waxoon yoo xam ne dang nga naan non président nangam nangam nangam ci période bii waxaloon na nit nangam mu yóbbu ko ci yoon nangam nangam ji demoon na fii est-ce que war na fa dem waru foon a dem yooyu yëpp nga xam ne mënoon nañ koo tuddal euh, Sonko bu doonoon président moom yàlla muccal na ko ci mooy mooy li ma tuddee rek garabu euh, gina ma doon penc yàlla daf koy nëbbu lawbe ba du ko gis yooyu yëpp nag atu lay doon boo xam ne nii dana mën a dajalewaat ñu bari ci Sénégalais yi ndax ubbiwul foron yi comme ni nga ko waxee Sonko dafa am foron yu bari nag yu mu ubbi woon ak i <laughs> ci biir xeex bi ci wàllu presse bi am na ci ñu mu joteel ci wàllu gu nekk rek am na ci ñoo xam ne ku ci nekk ak façon bi mu tollee ci digg xeex bi ak ni mu doon utiliser pour jëmmarloog ñoo ñu nag pour mu waroon leen a dajalewaat mënoon na xaw a nekk benn blocage donte Sénégal moom boo nee président yu bari dinañ ko fàtte waaye kii sens bi muy am nga xam ne boo jëloon pour centage ci dajale sénégalais yi euh, bu ko Sonko doon jéem pour centage bi mu ci am mën na bañ a néew jomaay mën na am pourcentage bu ko gën a bari ndax yooyu yëpp moom dafa nekkoon ci ginnaaw leader am di ko supporter nekkuloon ci diggu front bi xeex bi yëpp sonk boo gisee mu mën a ñëw kum joxañ ñu ne kooku la lu métti woon ci xeex beeg yëpp moo ko yenu woon yanu gi nag dafa yóbbaale li nga xam ne mooy point fort ak point faible am yëpp da cee nekkaale woon ci digg combat bi léegi nag yooyu def ci am koo xam ne moom dafa mel ni daf ko protéger woon te kenn yëgu ko te moom it sax yëgu woon ne mi ngi koy protéger <laughs> ba ci dernière minute la kooku ne la génnee kooku ne mi ngi nii Euh, amul lu ñuy wax lu dul colom nga na mu waxee na mu doon toogee est-ce que présentable na <laughs> yooyu c'est des détails ah <laughs> mën waaw <laughs> fa mën a kee ala kulli bu fekkee foofu rek la mbir yi tollagum kon alhamdulilah waaw munul soloog dafa euh, présentable ak nang bu dee foofu la nga mbiri toll waa baax na loolu moom alhamdulilah après mën nañ ko régler garaawul avant 2012 am na nañu fi jaaroon ñoo xam ne nii euh, image yi mi ngi fi ba tey maa ngi gis gone yi di génne Abdou ba muy waat <laughs> Abdou Diouf <laughs> ba muy waat ak ka mu doonoon Abdou Diouf 1980 wax dëgg Diomaye ko gën a présentable tey <laughs> ba tax na bu dee mbiri foofu rek la yem ah alhamdulilah. beneen bi dafa timide dafa yaru dafa ah. waa image 2012 yi avant 2012 yi bu dee mbiri ci image rek la yemagum. image moom sëñ bi gis nga télé yi boo jiifee sax yu bëri boo demee dañ lay jaarale salle maquillage defar la ba nga jekk waaw pare palais bi tamit ku fa dugg am na toccami gu muy toccami waate na bàyyi ba ba toccami palais bi <laughs> waaw defe naa daal li ñuy xaar président moom du ci na sañseek na defaraat ko toogaayam yooyu moom yeneen la waaye defe naa li imam wax indi ko ci liñ koy xaar ci santé bi di ko xaar ci yaakaaru ndaw ñi surtout première chose wàññi dund bi sénégalais moom sëñ bi ni muy def ba ceeb bi yomb ak diw gi ak yi bu demee ci marché bi am weccatam lu nekk mën na ko muñ waaw yooyu moom priorité la yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla bopp ak liggéey bu bu bu boo ànd ak borom yi xel yu lay xelal seet nan la ñuy redresser waat yu bari ba première chose ñu wàññi dund bi te c'est possible président Macky Sall bi mu koy jéem avant 2012 dañu ko mënul nekk wàññi dund bi mënul ne <laughs> waa Russie ñoom ñu ngay ku nekk ak sa problème ñoom ñu nga ca location ba waaye location bi sax gis nga même bu kii yegul ndax location bi man la ma ci gëm laa ci gëm ba tey du dañuy tëb rek ne location dañ koy wàññi wàññi ko président Macky Sall bi nga koy jéem a wàññi fii laa toogoon ne leen nekk man locataire laa wàññi gu njëkk ga moo ma jural coono ba fi ma toll nii tey ba léegi maa ngi luye ba léegi maa ngi luye maa ngi yor daara joo xam ne gul ci waawoon pël ba léegi dañuy luye daara jigéen ñi te fu location nekkoon benn dafa yéegaat après lan moo indi mooy dafa am fu ñu waroon a jaar jaar fa ba yegg foofu mais wàññi dund amul procédure bu gudd jaru ko dañ ne woon mënul nekk mu campagne ko deuxième tour damay wàññi dund bi première chose yor saaku ceebam bu jeex boobu sénégalais yëpp tàcc ko ne dañoo sonn Ablaye Wade dafa yokk dund bi yokk mais gis nga bi mu faloo immédiatement def ko wàññi ne kon kay mën na nekk mën na nekk sans départ rek volonté lay laaj ak euh, xaalis yenn yi nga xam ne du priorité nga dindi ko def ko ci ay priorité ala kulli xaalin ba tax na loolu lu ama am solo la euh, sëñ Pape euh, lan ngay xaal xaar ci gouvernement bi ñuy bëgg a taxawal waaw euh, yow sans alhamdulilah je pense que ne lu bëri lu ñu waroon a wax ci lu ñuy xaar ci nouveau gouvernement bi imam Babacar Sylla ñëw na ci yow aussi ñëw nga ci mais man fi may ñëwee di ko moytuloo moom en premier lieu mooy olof dafa wax ne euh, mhm. tooñ ñëpp mhm. tooñ ñëpp mhm. olof dafa wax ne tooñ ñëpp duma ñëpp am ci ñëpp dëgg yàlla musu ko may kenn donc loolu aussi en tant que ñun jeune en tant que des citoyens sénégalais ñu ngi ko koy éviter loolu lu njëkk deuxièmement mooy ci dëgg la laajee réew mi ba jot ko ci dëgg na doxal ci dëgg loolu ñu ngi ko ciy xaar beneen bi nag mooy fi Sénégal tollu tout est prioritaire waaye nag dafa am set priorité yoo xam ne man maa ngi ko ciy xaar peuple sénégalais bi ñu ngi ko ciy xaar bi ci njëkk mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dane réew balaa moo développé nee na nañu fonk ñi yore wàllu santé gis nga docteurs yi domaine santé dañoo war a fexe ba faj maanaam feebar faju ne waratul nekk fitna ci réew mi lolou mom ñu ko ci xaar xamal ko ne ko réew mi déjà dafa feebar hôpitaux yi wara a faj doomi réew mi hôpitaux yi dañoo feebar donc ci sukuraat lañu ñu nekk léegi nag li ci des mom moy mom Bassirou en tant que le président de la République des Sénégalais mu jël ay responsabilités ci santé bi d'abord deuxièmement Seydina mohammed sallalahu alayhi wasallam dane réew bu ñu wéree na doomi réew ma dem jàngi wuti xam-xam donc éducation bi muy enseignement bi mooy deuxième priorité bu Sénégal troisième priorité bi ma ko jàpp mooy réew mënta dox ci insécurité réew dafa war a dox ci sécurité parce que sécurité mooy indi stabilité donc boobu mooy troisième bi quatrième bi nag mooy li saareen yi gën a bëgg <laughs> mooy dund gi ceeb bi diwlin bi loolu moom lu mu gën a mën a wàññeeku rek moom mu gën fee mën a sax mën a am deuxième mandat mm-hmm. parce que sengoor da doon wax tubaab bi ne leen

moom dafa bëgg baykat yi parce que moom ci mbay lañ ko yare ay waajuram ay baykat lañu ba léegi dañuy bay donc moom xam naa ne ku fonk baykat yi la te effectivement réew bu ñu bëggee mu développé dañu war a fonk mbay beneen bi may wax mooy ñi xeex xeex bi te am espoir di dundee yaakaar mooy la jeunesse lu mu mën ci emploi créer ay emploi ba ndaw ñi dootuñu xemmam géej ndaw ñi dootuñu xemmam ci Europe lépp lu ñu bëgg mu yomb ci seen réew na góorgóorlu ba jàppale jeune sénégalaise bi gaa yi ngi koy xaar beneen bi may mujjee nag mooy régime yi fi jaar dañoo yàq géej gi jël ay licence de pêche defee ko nu mu leen neexee au détriment des millions de sénégalais ndax am na benn euh, ci projet mi euh, page 19 Bassirou mu fay wax te li mu fa wax dafa wax dañu war a renégocier waat contrat yi parce que contrat yi ñu am ci Sénégal ak tubaab bi benn baaxu ci amul benn bu ci mën a apporter Sénégal njëriñ waaye man en tant que citoyen sénégalais nag nekk un acteur politique jàpp ne man mii bu ma yàlla dimbali woon ba ma falu nekk président ci li nga xamante ne bii noonu laa nar a gouverner loolu laay loolu laay wax tey le président te tous les sénégalais muy Bassirou Diomaye bi ci njëkk mooy. moom dafa wax ne ak Ousmane Sonko dañ wax ne caisse noire moom day Sénégal maanaam votel président 8 milliards muy tibb di def lu ko neex di ci réew mu ndóol Ousmane Sonko ak Diomaye dañu gëm dafa a premier ministre am caisse noire day Le président assemblée nationale am am am caisse noire ak fonds politique day loolu na ci rupture yi sénégalais nouveau gouvernement bi bi man moy oustaz babakar man mënu ma le président de la république man nomé le ministre de l'enseignement supérieur oustaz Babakar, état bi ñoo moo la jox véhicule de fonction oustaz Babakar, état bi moo la jox logement de fonction oustaz babakar état bee la dagal salaire de 5 millions wala 3 millions de francs CFA oustaz Babakar, la ca dess nak ci sa dundu yow en tant que un citoyen yaa ko war dimbalil sa moy ba dole bi day fay ndox da nga wara fay ndox en tant que ministre baadoolo bi day fay courant yow ministre da nga wara fay courant baadoolo bi bu téléphone day jënd crédit yow ministre la falé da nga wara crédit comme tout le monde wayé nak tay ñu fal la jox la jox la bon essence jox la euh, ligne téléphonique do fay courant do fay ndox say doom di gundandat nek ci la leen neex lolu aussi rupture bu sénégalais di xaar tay ci réew mi ci la bokk donc da ngay directeur Sénélec wala agent Sénélec mais du fay courant wala bokk dañ leen di may centage boo xam ne soo ko jeexalul doo fay courant loolu nag moom Bassirou Diomaye maa ko dégg mu ne Sénégal gii bis bu yàlla dogalee ba réew mi tàbb ci sunuy loxo mu ne rongo ñu baa dollo yi siim cere buur yi fii nee na day jeex donc nag moom mu ngi ñuy gañaloo espoir mu ñuy dundaloo yaakaar boo xam ne suñu maam yi doon nañ ko reefe amul suñu bayyi doñ ko rêvé amul kon ñun seeni doom rêve bobu seenu nous ak suñu maam yi doon rêvé yàlla mu ngi ñuy sutural ci waa ji nga xamantene bi tay tey ñun dañ am espoir ci moom muy son excellence le président Bassirou Diomaye ñu ngi am yaakaar ci moom beneen bi mooy dama gis benn reportage bu ñu def njaga bayam baayam toog yaayu Bassirou Diomaye ñu ngi ko fekk mu uuf gerte di ko di ko xolli di yëy biñ leen laajee dañ papam moo wax dane suma doom li li li maanaam lii këf nitu àdduna këful suma doom mooy alal ak pri ak privilège mooy këf nitu àdduna te Basiru Joomaay suma doom la man xam naa ne alalu àdduna ak privilège yu àdduna këfut Joomaay Fay te bi baayam di wax loolu di ko seedeel Joomaay booba ñun dégloo guñu bi Joomaay di wax ne man en tant que président am naa bor te bor ba yegg na lu mat vingt-huit millions parce que nee na 30 millions la leboon jënd ci auto yeggale ci bâtiment dem ba ci benen xaritam lepp ko 10 millions yo xam ci benen projet la ko waroon duggal kon kay yow bo nekkee impôt et domaine nek fa inspecteur des impôts ñu gis fi say morom jaar ak teraanga gi ñu am ñom teguñu ko fenn ci lu dul yow da ngay am ay privilège ci biir impôt et domaine té ñaari secteur yi état bi war nañ ko xoolaat moom euh, le président Diomaye muy dama setlu ku nekk inspecteur des impôts rek daanaka ñi ci nekkul milliardaire na nga leen di compter impôt et domaine laa wax ñi ci nekkul milliardaire da nga leen di compter beneen bi mooy douane Sénégal ñi ci nekkul ay millionnaire ak i milliardaire da nga leen di compter donc nag ñun rupture la ñu woote Bassirou réew maa ngi nii patate chaude nag la ko Macky Sall bàyyeel réew mi naqari naa gouverner coow li bari na problème yi bari na te li metti nag ci réew mi dinaa ko wax muy ñaar oustaz mooy kilifteef am na ci benn kandidaa euh, bu tudd Idrissa Seck bi ñu ko laajee dane moom bokk na ci programme am ñu delloo si kilifteef ci réew mi xam ne réew day am kilifa réew nit ñi dañu war a yaru réew jeunesse bi dañu war a yaru waaye nag la tubaab ba waxoon moom lay fàttali Bassirou Diomaye su bëggee redresser mi na utiliser proverbe bu tubaab bi tubaab wax ne charité bien ordonnée commence par soi-même gis nga mi kuy digle changai. bëgg tek nit ñi ci njub bëgg a nit ñi ci dëgg na la nit ñi fekk ci dëgg na la nit ñi fekk ci njub donc olof yi lebu nañu ko tegele su goudé lool te daanuwul nee nañu xool fondement ba ba jiitu c'est lui le père de la nation sénégalaise nit ñi am nañ ci moom yaakaar ay moromam ñun ay génération bassiru benn at la ma magee kon one de la même génération am na ay rakkam yoo xam ne dañu am ci moom espoir ay baayam am ci moom espoir jigéen ñi am ci moom espoir jeunesse bi am ci moom espoir espoir boobu ñu am ci moom nag ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy aar te mooy sàmmal doomi aadama ba du gis defetam yàlla nañu yàlla sàmmal suñu basiru joomaay mii ba yàlla bu ñu gis defetam ndax defetu bassiru joomaay tey mooy defetu peuple sénégalais bi beneen bi aussi oustaz maa ngi koy dénk way politique yi oustaz politique du métier gis nga doomu aadama da ngaa war a sàkk fooy suturloo ba noppi ngir mën a sàmm sa honneur ak sa dignité sàmm sa ngor te doom soog a defi politique gis nga politique euh, heure supplémentaire la waaye du métier ñi ko def métier nag ci réew mi tey lu yàqu ci réew mi ñi jël politique def ko métier tey ñoo yàq Sénégal ñoom ñoo ciy saaga ñoo ciy dóorante bal ñoo ciy liggéeyante ñoo ciy waxante lu ñaaw ñoo ciy sàcc ñoo ciy luubal ñoo ciy def du n'importe quoi parce que politique la ñu yaakaar ci politique la ñuy dund waaye lii Serigne Touba waxoon radiyallahu taala anhu nee na adduna day lépp lu la jox jàppal ne ci sa morom la ko jëlee dana ko nangu joxaat ko keneen te nam la sotalee yow ba nga gañe sa morom di ko ree Serigne Touba nee na jamono dina ñëw adduna dana dana longoog ñeneen di la xeex yow ngay jooy comme na nga doon reetaani kon nag nañu xam ne Basiru ñu ngi koy dénk ne ko adduna moom rien n'est éternel te ñaar yi aussi na koy bàyyi xel keneen ku dut yàlla moomu ko kenn askaneewula ko Seyduna Muhammad ginnaaw yàlla ku ko féete kaw amul moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te ñaar yi yàlla joxu ko ko yàllaa ko moomal boppam bi yàlla bindut nit koo xam ne da nga parfait yàlla rek mooy ku mat keneen ku dul yàlla yàlla dafa la bind ci plume imperfection nit dafay dafay dund ci matadi beneen bi mooy euh, dëgg du sama alal du alalu Baay Ñas du alalu limamul mahdi dëgg alalu yàlla la basiru na sax ci dëgg yërëm askan wi man daal lii laa lii laa koy lii laa koy digal incha allahu rabbi fekk nee nañ la yow tànn nañ la pour nga bokk ci ñiy liggéey ak sénégalais nekk ministre wala nga nekk DG wala wala loolu moom tuddee nañ la xëy salaire bañ la jël warlu la ko di la ko jox war na la doy gisee wuñ ñamoon bañ def ci esprit yi la woon wan ñu ne rupture boobu ca ca gi bu ñu réglé problème gi gi ci état problème gi buñ ko réglé rek lépp réglé wu noos gi ñu gis jëmi Basiiru nekk fi di yéeg ay oto yoo xam ne sëñ bi si inadmissible gisuñ kenn kum faloon ñu xam ko fii mu dëkk ci koñ bi ñu tàmbali ko gis mu yëkkati immeuble am di dawal oto yu rafet ci koñ bi mu réglé mm. loolu mm. ba ko ci nekk boo ñëwee nekk ministre danañ la di soxla nga ne ah wax dëgg tey dara nekk mm-hmm. ndax sa salaire boo ci fayee sa location ah. locataire nga say doom yi jàng nga fayal leen ah. faj sa yaay jee feebar sëñ bi doo am ñu lay rancé buntu kër nga loolu <laughs> loolooy tax sénégale yi mën a toog seen biir kër hmm. gis nga liggéey bi nga yow pour emploi des jeunes hmm. mënagul rek la de loolu il faut mu leer ndaw ñi bari nañ bari goo xam ne état bu jub ne da leen di utal liggéey da nga hmm. danañ la fal cinquante ans bu noo xam nga fan ngay doore fexe ba ndaw li leen doon sonn pour uti liggéey mooy dundal waa kër gi nga fexe ba dund waa kër gi yomb de sax ndaw li li tax muy fippu doon dugg ci gaal moo benn yaayam ju feebar dem hôpital dalal jàmm ñu ne ko dana fay junni pour ñu xool Basiiru xëy nag dalal dalal jàmm ak CTO ak Massamba ak Mademba Thiam léegi ticket du weesooti deux mille ci hôpital yëpp mais sëñ bi ku feebar waroon a dem fay juróom fay junni nga ne ko léegi ñaar ñaar ñaar téeméer ñeenti téeméer ngay fay mu am juróom benn téeméer yu mu def ci poosam ñibbiwaale mm. sëñ bi kooku xelam dana dal bu feebaree mën a dem hôpital. oustaz nga am na ci Sénégal soo fa indee malaat ak fu situation am toll. soo indiwul cinquante mille garantie du ñu dugal sa malade. waaw cinquante mille laa wax fukki junni. loolu xale bi koy dund toog liggéey sëñ bi lu dugg yaa d' abord boo jëlee wàññi train de vie état logement de fonction ku am mm. immeuble yu mu denc sëñ bi am na oto tali yi baax nañu sëñ bi ku jël utal logement de fonction wetu palais mooy koo xam ne sëñ bi pour mu xëy liggéey day compliqué ndax yoon yi na xarit autoroute à péage baa ngi fi ministre bi fi mu dëkk mën na ñëw ñaari ministre kañ lañ koy soxla palais conseil des ministres lu ko mooy mu ngi ci ministère ministère ministère am léeg-léeg ma nga nekk ca biir wakaam waaw léegi beneen bi mooy beneen bi oustaz xam nga njàngat bi nga xamante ni bii tamit dañ ko ciy def mooy yow dañu lay fal ministre nga am un bon salaire nga am ay carburant ba ministre yi dañuy dagg ci seen i bon carburant di ko mayee yow deuxièmement mooy sa sa dund ak sa dunduk njaboot ceeb ak diwlin comme yi ñuy wax état bee la ko warlul yow sa ligne téléphonique état bee lay daggal ligne da nga ciy woote say doom di ci woote say soxna di ci woote ñu jox la passeport diplomate jox ko say doom jox ko say jabar beneen bi mooy yamuñu ca da ngay am yooyu yëpp baadoola bi nag moom ma ngay souffrir te li nga doon tey baadoola bee la ko def tey baadoola boobu bu amee benn facture bu mu fayul Senelec ñëw coupé ko su amul benn facture bu mu fayul o euh, wala SDE ñëw coupé ko waaye yow privilège yooyu yëpp état bi defal la ko yamoo ca

su ñëwul jox la nga ne ministre bi dafa nay nangam ak nangam sëñ bi ñun ñoo leen di sàcc la kooku salaire am lu tax ku nekk mu lay satisfaire ci sa xew ku nekk tuddee la xew grand théâtre kee tuddee la ay jàngam kee tuddee la nangamam kee tuddee la conférence am nga ñëw indi sa délégation yëkkati enveloppe joxe enveloppe bi bu bu tuutee ba tuuti def na cinq cent mille kii bu feebaree nee na ministre bi moo ko war a jàppale pour mu war a dem faju ji ku nekk ñëw wër la sëñ bi ñooñu ñoo sàcc ñun ñooy sàcc loo suñu politiciens yi mais bu ku nekk defee ci boppam ah sëñ bi wàññi nañu euh, ordonnance yi garab yi ku nekk na jéem a liggéey ut loo faju ji ceeb bi mu ngi nii téeméer la doon jar léegi def nañ ko juróom benn fukk ku góor góorgóorlu am loo jëndee ceeb diw gi yombal nañ ko suukar si yombal nañ ko location bi munuñ ko régler état ni muy def mooy souf si des ci Sénégal nako conserver yeneen souf yu ay nit doom momon te ko ñu nang ko tabax ci ay immeuble ku nek sénégalais bu ne am appartement 100 000 logements yi ñon wax fi ana cent logements ya mais cent logements yu nopp cent sénégalais am nañu kër yuñ dëkk mais suñ wa def deux cent defaat yeneen il bi location tan sa bu la neex lay doon force de dañuy wañi lu ko ku am touti, ñu jox la kër nga dëkke sëñ bi yooyu jarul demal fii dikkal jarul jàngat naan ay doctorat économie nga ak daal yu simple la pour loo xam ne ni sëñ bi jarul sax la pour ñu régler Sénégal tamit soxlawu ko lu yomb la toog fii naan wàññi naa dund bi Makhtar Sarr nga yokkal ko ciment soixante quinze mille wala soixante quatorze mille mu jëndee ko tonne ciment fer serre lépp serre nga ne ko non da ngay tabax sa kër ba noppi nga wàññi ko force munul ne yow kay li ngay déparé balaa ngaa wàññi lu gaañ aca bi na wàññeeku na bi wàññeeku peinture sax dafa cher carreau seer béton seer terrain yi sax bu ci nekk limité ku nekk yaay seet nu la neexee nga jaay amul zone bu nekk ak nu ñu war a jaay organiser guñ loolu mais sëñ bi boo nee nañ wàññi location defoo lu dul neexal luyeekat yi pour ñu voteel la mais loolu xel nangu ko mais Sénégal def suuf su dul jeex boo demee dëkk bu mel ne Maroc mayuñ kenn ngay jël benn nangami kii hectare ah. wala ngay tabax sa kër goo xam ne nii kër gu ne yàmbalang la ci yenn surface yi non état dafay tabax ay immeuble marocain bu nekk dem ñu jox ko caabi appartement nga fa am yaag sa njaboot ñu defar ko mu nekk ay cité yu ne boy ñu def ci ay tali taal ay làmp foo dëkk am yoon bu la mën a yóbbu mën nga xëyee fii daw une heure de liggéey del siwaat ci sa appartement problème mu location teggeeku na la mais loolu lu mën a nekk la lu mën a nekk la lu mën a nekk la tey Tiwaawoon pël gii feesagul ñaxiraat jam nangam yooyu yëpp ci ay zone yoo xam ne suufang fa des sëñ bi demal nga nga nga teel a récupérer suuf yooyu téye ko état tabax ko SN HLM ñu dooleel ko ñooñu ñu fi fekkoon yëpp ñu dooleel leen lañ doon laaj dafa cher la ñuy joxe kër yi dafa cher ñu wàññi ko ba baadoola bu nekk mënoon a fay weer cinquante mille léegi ñu mën ko jox kër muy fay giiru dundam su paree ak njabootam man ko mottali te duñ jël kenn jox la kër nga dëkk ca doo fay da ngay fay ñu topp la lépp ñu organiser ko bàyyi joxe liquide liquide dem hôpital tey am na hôpital mag bëgguma ko tudd da ngay dem bëgg a fay ñun la duñ laal orange mu ne duñ laal wéef duñ laal yooyu yëpp ngay dem génne xaalis liquide joxe ko da ngay génn hôpital bi dem génne ji liquide ñëw jox joxe ko xobbet xobbet fi jamono toll bañ trans rek la du leen trans kese buñ demoon ba takk der bu taxaw ci tali ku mu jàpp doo génnee xaalis di joxe mais dangay fay wéevu ak orange mën a dem sëñ bi léegi dëkk bi tegu ci yàlla <laughs> oustaz Saïd waaw macha allah alhamdulilah eh, xanaa ñu njàmbaas rek dañuy wax ne njàmbaas yàqul ser bu fekkee couleur ba nuroo na xanaa Bassirou Diomaye Faye li mu koy njëkk wax mooy mu am ixlaas mu sellal yàlla tax parce que le pouvoir rend fou Si on ñu 5 ou 5 wala 10 GIGN ñu wër la peu de poignée oto weñ la dal kilim suba kilim li ngay lekk dañ koy xol li ngay sol dañ koy médecin bi lay traité mom moy wax nan nga am ko xam mo éducation physique moy ni nga wara entraîner ak téléphone Et xam mom lañ lay jox ak heure yi nga luy facture le président faut tourner ñep kep serré tin protokol booy dem ñaaw kan njaga ñaaw kay tey fi mu toll nii rafet lay tudd ndax àdduna bi yëpp xam nañ njaga ñaaw États-Unis xam nañ njaga ñaaw Maison ya defaroon nañ ne waa falu ak wa Louga ak wa Sénégal ak wa Zowal xam nañ léegi njaga ñaaw xam nañ ñaaw musul ñaaw reportage bi ñuy def ci mom fi mu jangé mbour seconde et première ben non la troisième première sur première première sur première moyenne générale mu suis école ba l'école Je du je wax pour mu def ko mooy mom, dafa wara gëm di yalla ko nakal war ko nak daf ko wara def mu boo ko defee laax danaa nikk ñi ma àndaloon kot ñooy mën a yëg seen bopp ci réew mi beneen bi mooy mu def diggante ak yàlla mu def ko benn silax boo xam ne dafay dëgër docteur Mursi daawul tëdd ñaari ñaari heure di nelaw ñu ne ko waral loolu mooy dama jàng histoire Omar ibnul Abdul Aziz ak Omar ibnul Abdul Omar ibnul Xataabin ñu ne ko lan moo lan nga jàngee ci ñoom mooy mu ne bëccëg bi damay nekk ci service su nit ñi guddi gi ma defar sama diggante ak sama borom ngir bi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan enseignant yi nga xam ne li ñuy laaj te nguur gi amu ko amul ci trésor publique yow yàlla maa lay ñaan nga woon ma yoon woo xam ne dinaa lijjanti loolu ba ñu delluwaat ci classé bañ a grévati kooku sila sa diggante ak sa borom ñaari at yi nga xam ne def na ko ci pale mooy uma kii euh, docteur Morsi hmm. tabaskewul këram korité wul kërëm ñu ne ko lutax mu ne ba jamono bi mi romb di dem di korité gi ma ngi ay yalwaan kat yo xamné amuñu fuñu korité amuñu fuñu tabaske ñoñu lay jël invité len ci palais bi man ak ñoom ñu ànd bokk lu ñuy lek ànd bokk lu ñuy naan benen bi moy al musawama mu yemelé doomu adamay husnul ikhtiyar ixtiyaar tawsiixul wasaayif fexe xool ñan nga am compétence mu jox leen place yi wóor bañ ne kii laa àndaloon di xeex moom laa koy jox donte yeewu ko kooku faw mu bàyyi ci xel beneen bi mooy taxriirul watan suñu réew mi faw mu libéré ko ci sultaan yi ajnabiya mooy pression sociale ak colon yi nga xam ne ak colonialisme bi am ci réew mi mu fexe ma teggi ko su ñun mi ngi koy wax partenariat gagnant-gagnant dañ koy soppi ci dëgg ñii nga xam ne mooy Eiffage ñu joxoon leen sunu tali bi ci nangami at ci ñeenti voie ñu ñëw yokk ñeneen ñaari voie yokkaat ñaari voie contrat bi dañ ko war a wàññiwaat durée biñ ko waroon jot dañ ko war a wàññiwaat ndax dañoo yokk ay voie bu doon 1000 oto moo doon jaar par minute moy jaar par minute ndax dañu yok yokk càmmoñ yokk jor bokk ci won dañ ci wara baye xel benen bi moy islaaxul xukuma mbokk yi justice bi dañ ko assainir amna fi Sénégal ño xamne ma sañ la lu leen neex def dina la tëjlu da fi wara deñ nga ñëw ci police ñu lay toroxal sis taw tok, sis ne sa wet nga bugu tok, ñeul do fi tok sa moromu bay te sis dañ ko tek pour nga tok nga ñew commissaire di la saga lool da fi wara deñ dañ gendarmerie nga ñew ñu neewal la doole torturer nit torturer la xet torture yo oustaz bu dul plateau bi ñu wax ci yo xam ne damay bañ ñu jël si ma mhm. loo ne ci Hitler nga ko doon deg ak ci Jamal Abdel Nasser ak Hosni Hayri Moubarak ñooñu ñoo ko doon jégg muy am ci miim réew loolu faw ñu bàyyi ci xel beneen bi mooy ñu nangu nasiha kilifa day nangu ñu koy jox ay xalaat ndax nul n'a le monopole du savoir lii ma bëgg a def ni nga ci xalaat dafa am solo beneen bi ngay déglu ñi nga xam ne dañu ne sa noon lañu léeg-léeg am na luñ lay waxal mi ngi ci yow donte léeg-léeg ñu sosal la mm-hmm. waaye léeg-léeg wax défaut yoo xam ne mi ngi ci yow boo xoolaatee sa bopp bu baax a baax a baax di nga xam ne lii défaut la mm-hmm. ñi ngi wax ci wàllu faj mi dama mës a saaga benn colonel ak benn commandant waaw waaw <laughs> sama doom feebar clinique bi moo jógee ñu ne directement bolok ma dem ci hôpital ba wàcce sama doom ci taxi ba laaj ana brancardier yi ñu ne ma brancardier yi dañuy nelaw puus puus yaa ngi bu la neexee nga teg ci wala ñu yeewoon la diw nga fay ko waaw ma jël sama doom teg ci brancard di puus nga leew ko yéeg moom ca premier étage fekk infirmière yi ana ñi nga xam ne ñoo monté ñu ne ma dañuy reer une minute dañuy reer dix minutes dañuy reer quarante cinq minutes dañuy reer sama doom ji mi ngi bëgg dee ndax métit ma ne infirmier bi ñii di reer fal nañ ne mu bañ mu ne ko fal nañu ne mu ne ma ci néeg bee ma ñëw leen bi yitu yi ya, ma ko dañ leen fay ngir ngeen reer wala dañ leen fay ngir ngeen taxawu malade ya urgence ngeen nek wala fan ngeen ne bu doon sen nday ak sen baay yi ño fi ñew di ngeen dag sen ay reer waji wax rek ma asan juuf xoromal bu sap sap asan juuf la def morgan ak ñom ñep la indi kero tawli le kur ñu seppi sen loxay may leen benn loxo dugaat ci ndab li te wallahi benn loxo dugaatul woon ci ndab li ndax jamono boobu pare woon naa ngir dee ndax sama doom laay bañ mu faatu samay loxo te li ma war yëpp def naa ko te ñu dugal bolok ci ëllëg sa bi ñuy wàcc ay dix heures romb ma sol seen tën yi naan ma alors ma ne ko bu ngeen ko defaatoon ma defaat ko galon yeeg lépp caa ci boole yemale ci yéen lañ doon xaar yar mhm. ci yéen lañ doon xaar am yik yëgu doomu aadama fi ñu la teg mooy urgence chirurgie infantile mooy fi ñuy opéré xale yi nga xam ne majeur guñu méthode mënuñu ko muñ ngeen di def lu ñu mel keroog noonu laa ko doxalee oustaz beneen bi mooy mhm. ni ma gisee ñoom ñuy campagne mhm. ni ko Ousmane defee ay quinze quatre quatre wër ko benn bu ci ne cinquante mille essence dawalu ko bu fekkee noonu la ñu yoree nguur gi bëgg ñu muñal leen duñ ko mun def beneen bi mooy ñu wax nit ñi yoruñu baguette magique ba loo xam ne dañ ko bëgg mu soppeeku nekk or mu nekk ab xeer nga dóor ko mu nekk or amut beneen bi mooy ku yaakaar ne ñoom ñoo lay jox liggéey amut nañu fexe ba sénégalais yi li ñu nekk di liggéey ñu ñu dooleel ko menuisier yi fi nekk ñu ne di d'ici cinq ans kenn du importé di meuble sunu menuisier yëpp ndeysaan dem nañ ci géej macha allah ñenn ñëpp nekk nañ ay ambulant suba danañ ci yaatal ñëpp nekk nañ ay ambulant waaw waxtu wee jeex mu bëgg a ñëw ak imam mhm. en tout cas daal loolu mooy yi nga xam ne macha allah bokk na ci yow xam ne jàppoon nañ ko ci am na solo suba suba juróom-ñaar suba da nga ko wéyee yooyu yëpp incha allahu rabbi di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala am na solo am na solo te imam mhm. wax bi nga wax noonu ñooy sàcculoo gaa yi mhm. bëri na ci de mhm. ak ràngati la sa ndeyee ko liggéey mhm. te jamono yuy wax sa ndeyee ko liggéey am nga ñetti frère yoo xam ne amuñu métier amuñu palto am nga ñaari sœur yoo xam ne seen jëkkër loxo jotul seen gannaaw ñaari fan yu ne ñu ñëw ñaan la xanaa ñoom seen ndey liggéeyu leen wala jenn ndey ji juru leen <laughs> yéeme na yéeme na yéeme na yal na yàlla dolli sutura am na solo côté yu bari souligné na ko yoo xam ne danañ ci dellusiwaat suba imam mm-hmm. li mu wax ne duñu duñu créer yi emploi dañuy dooleel yi fi ne ak maa gëm loolu nga baal ma balaa ma laa jox damay nettali mm-hmm. euh, borom EDK ñu baal ma du publicité mm-hmm. li may wax kooku yow mën ngaa wax ci moom loolu mën naa ci seet waaw yow moom waaw yow xam nga maa EDK waaw yow <laughs> man EDK tabaarkalla bëgguma wax lépp daal mosuma gis demba xaw ma kuy demba waaye moom xam na ma fu ñuy tukkee fu ñuy dem donte wàcc naan kaasu café danaa ko fa def ndax lan benn sénégalais bu am volonté sénégaliser ay mbiram julliteel ay mbiram en tant que jullit ba heure boo demee ci station fekk fa jàkka toilette yu ñuy defar di fay équipe bu fay liggéey exemple lu Demba Ka état mën na cee déparé créer dix mille emplois ku mel ne Demba Ka dama cité kooku mais am na ñeneen ñu mel noonu Basiiru bokk na ci li mu war a def ñëw gëstu ñu mel noonu Demba Ka mi ndax mi ngi fay imp wàccoon ak yooyu yëpp nga noté dem ci ñi muy liggéeyloo ndax mi ngi leen di fay salaire bu baax nga noté def noonu ci ñeneen ñëpp ku mel ne Demba exemple exemple kii taxawal na station am na supermarché am na pâtisserie yëpp a ngi dox ba mi ngi law fépp ci Sénégal te mi ngi employé ay junni ndaw mais sëñ bi kii départ la pour créer emploi ñëwal nga pousse dem ba woo ko ne ko yow loo soxla pour yokk sa station yii sa pâtisserie yii sa nangam yii ba ci sa jolof bii nga mujj créer mi ngi wër Sénégal Sénégal lay bëgg nañ ko mais sëñ bi kooku créer na emploi yu dul jeex doo fi nekkaat di kër yi ay usine di naaw ci jaww ji di dem di dikk lu simple la fekk nga ku taxaw jël nay ndaw te kenn nekkul ci ginnaaw ku dul dooley boppam état ñëw puus ko ci ginnaaw foo yëg ne mu ngi fay xëccoog waa bitim réew suuf nga jox ko ko xañ ko waa bitim réew mooy fayda ji kat di ñaan patriotisme bëgg sa réew sëñ bi doo yëg ne Demba soxla na station nga yëg ko jugee bitim réew soxla station nga nekkoo ko mooy doon faveur bi ci kaw Demba lu kooku mën a jël fukk ci doomu sénégalais moom mën na ko jël junne ñee nag doo leen xañ da am foo leen jox mais place yu stratégie yëpp da koy jël jox ko ku mel ne Demba ak ñeneen ñu mel ne ñoom ndax kooku dafa wane mi at mu déparé ci zéro ba xëy station bi daj Sénégal ne ko seetatil foo bëgg ci biir raison yëpp ma jox la fa suuf ba noppi nag lebal la lebal la jox la ay milliards léegi nag gis nañ benn faay mooy li ngay fay ci salaire baaxul na yokk jëloo leen inscrire leen ci luy tax bu ñu feebaree ñu mën a faju inscrire leen fa teg ko ci norme yi état soxla pour kuy liggéey liggéeykat ngeen leen nag léegi damay lancer benn appel d'offre léegi bépp société boo xam ne norme yii ma tëral respecté nga ko fii nangam yi at ci kanam danañ la dollilaat nangam yu la joxoon ci ay milliards gën la financé gën la nangam sëñ bi société maanaam secteur bi ñooy créer emploi yi réew mi jàkk li <laughs> nga wax noonu moom moom ma ci dugal mais c'est important imam mën nañ daanalee ci looy xaar ci wàllu wàllu wàllu justice waaye laataa loolu mooy ban gouvernement ngay xaar jomaay taxawal ko ndax maa ngi léegi ci Twitter bi mu def wane ne dana taxaw taxawal balaa yàgg benn gouvernement boo xam ne dana ci dugal sénégalais yi nekk ci réew mi ak bitim réew ak képp koo xam ne ni am nga compétence pour liggéey moom dana la ci dugal euh, maanaam ban gouvernement ngay xaar gouvernement bi may xaar ci président yi mooy gouvernement ñu am compétence ñoo xam ne boo leen nattee ci xam-xam am nañu mérite bi boo leen nattee ci liggéey bi nga leen dénk mën nañu ko boo leen nattee ci jikko seen jikko mën na ko lu tax jikko ji nit mën na am xam-xam mën a liggéey te jubul di liggéey lu baax am xam-xam waaye juba di lool gis nga bale googu muy indaale bale bi junj la de xawma kan moo ko ko jox <laughs> mais bale gi affaire la fii am na ñu am xam-xam mën a liggéey nekk ci système bi foog mu bale leen parce que amuñ jikko dañuy jël maandu wuñu doylu wuñu donte am nañu xam-xam foog mu indi équipe boo xam ne ku leen xool danga leen di naw ci wàllu jikko boo leen présenté Sénégalais yi ñu ne kii mooy ministre tel ñëpp ne gongo ministre sëñ bi dafa war a am ay valeur am xam-xam mën a liggéey ba pare am jikko yu baax man kooku laay xaar ci moom bu ma xaar mukk ci moom mu indi ñoo xam ne dama jàpp rek ne ñii dañoo sonnoon ci combat bi déedéet na tànn ñu am compétence am xam-xam jub ami valeur am rigueur te wàññi nombre gouvernement bi président Macky Sall diggé woon na vingt cinq ministres mujj ci ay trente quarante nañu wàññi nombre gouvernement bi na gën a ndaw mbooloo bi lu mu gën a ndaw gën a efficace lu mu gën a yaatu gën a naqaree contrôler bëri na poste ministère yoo xam ne wallaay presque mënees na koo boole ministère yu bëri parce que ministre bi moom dafay suivre rek waaye ñiy liggéey dëgg mooy techniciens yi ne ci suuf ñoo ñëw mat a yaatal kon ñi ngi koy xaar mu ñëw ci gouvernement bu mel noonu bi ci des junj nañ ko sànq mu wàññ seen train de vie mu bàyyi xel itam ñi muy xëcc dugal leen ci gouvernement bi ay lan lañ ban esprit la am parce que am na ñoo xam ne tey dañoo nekk ci àddina boo xam ne dañoo gëm ne nouvelle ordre mondial bi ñuy dund ñoom dañoo bëgg a dooleel les droits des minoritaires mooy agenda LGBT bi am na ñoo xam ne ñi ngi ci gouvernement yépp toog di xaar am nañu xam-xam nañu mën nañoo liggéey boo bëggee sax ñu financé la waaye boo leen boo boo leen boolee ci sa gouvernement di nga dooleel góor jigéen na vey ci bépp projet bu ñu ko gaaral ak képp ko ñëw di liggéey si ban profile la am fan la jógee lan lay liggéey parce que ñun kat agenda LGBT daf ñoo yitteel en mm. tant que ànd sàmm jikko yi mm-hmm. te gis nañu programme am bu mu génnee amoon na trace yu mel noonu mun mm-hmm. a gun cee sori mm-hmm. biñ leen ko signalé ñu dindi ko kon wane ne na am na ñoo xam ne ñi ngi fi di xaar gouvernement bu dikk ñu profitoo jaar ci yow. xëy na ñenn ñi ay féministe lañ ñenn ñi ay faramason lañ comme ni ngeen ko waxee moom yàlla def na alhamdulilah bokkul ci président yi nu mësu duut baaraam ne am na lobby yu ne ci ginnaawam ci loolu. Hmm. na bàyyi xel gouvernement bii muy jël sénégalais yi ñoo ko moom. Hmm. moom sénégalais yi ñoo ko fal kenn du wax candidat France la. Hmm. kenn du wax kandidaa wu nangam la déedéet. dëgg la Ousmane Sonko ko proposé. waaye rupture a tax ñu nangu ko. mooy am na kum doon proposé bu ko nit ñi xamee ci yenn yi non du am li mu am mais nit ñi dañ jàpp ne moom xëy na loolu mi ngi ci moom ñu ngi koy ñaanal yàlla nag d'abord parce que lépp ndimbalu yàlla la yàlla defal ko ndimbal goo xam ne dana am kattan ba équipe bi muy àndal nekk équipe bu mel ni mu bëgg moom te bëgg-bëgg boobu fekk mooy bëgg-bëgg bu Sénégal yi di am kon ñu ngi koy ñaanal équipe boobu di ñëw ñoom it nañ bàyyi xel ki ñu àndal ñu xam ne ndamam mooy seen ndam ñi ci des te ne ci ginnaaw te kenn jëlu leen nañu xam ne liggéeyal sa réew du yor poste ministère mm-hmm. am na yu bëri yun war a mën a liggéeyal réew mi te doo nekk ministre doo nekk DG doo nekk PCA mm-hmm. te danga liggéeyal sa réew liggéey bu dul jeex man li ma gëm mooy réew mi buñ ko bëggee liggéey ñi mm-hmm. ciy gën ñàkk liggéey mooy ministre parce que li ñu war a liggéey dëgg mi ngi ci terrain bi te incha allah ku ci nekk am nga fa cër war nga mën a liggéey ci kaw bu ñu dooleelee ñi nga xam ne ñoo ko yore wax nga ko léegi état du joxe liggéey dafay créer ay conditions yu tax emploi mën a am condition yooyu ni nga koy créer wax nga ko am na ñoo xam ne tàmbali nañ mm-hmm. mais tëralal ay condition mm-hmm. ku ko ci respecté nga dooleel ko su ko defee ñooñu recruter la ay nit mm-hmm. Sénégal yi dem di liggéey mais état bu bëggee gàddu ñëpp ci liggéey du ko àttan dafa diis su ko defee yooyu ñi ngi ñaan ah mu bàyyi ci xel justice bi justice bi nag moom fokk ci ñu xoolaat ko oustaz man dégg naa ñu ne xëy na ñu bàyyi justice bi moom boppam d'accord mais man jàpp ma ne daa war a moom boppam cent pour cent hmm. parce que dafa am ñu ne ci justice bi ñoo xam ne bu leen état nootul hmm. borom alal noot leen hmm. loolu mooy risque bi bis boo leen bàyyee seen bopp ñu dem man milliardaire bu ma dajeeg maay dee te bu boobaa bu dee juge boobu amul beneen loxo bu ko mënal dara yaa problème mooy benn nañu identifier ñi ñu jot a gis ñu def ay jëf yu ñaaw yu salt yoo xam ne ñépp a gis ne lii dafa ñaaw ci justice na leen bale bale bi pour loolu la ñi ñi nga xam ne defoon nañ ay actes yoo xam ne actes yu courageux la ñëpp gis ni lii mooy dëgg mm-hmm. mu jël ñoo ñu teg leen ci institution yi nu yaakaar mm-hmm. te bañ a am ci ñoom benn influence mm-hmm. ñu xam ne ñii seen jikko seen ngëm-ngëm wane nañ ko mu tàmbalee ci ñooñu joxe exemple nag commencé di topp ay nit di defi enquête parce que état dara umb ko gis nga justice bi boo fa duggee nga ne leen profil bu mel nangam laa bëgg wallaay La ñu defal la enquête Né le profil tel diw amna ko diw amna ko diw amna ko nga xëcc ñooñu doole leen teg leen ci institution bo défé non ba institution yu dëgër cordon ombilical bi nekkon ci digënté état bi ak justice bi nga dagg ministre bi ngay jox justice na jang justice ba paré am jikko ja jup maandu te gëm na ne nyaku fi Wa, am ñu woné seen bop ci njubadi mom mm. na leen fi bale gi jëlé amna ñu woné seen bop ci njub gi mm. nañ leen fi indi la presse mm-hmm. mu jublu ci presse bi mhm. ni presse meloon bu njëkk nga xam ne da ngay jël xaalis def ci presse bi ñu lay defaral sa image mhm. bu ñu xëyee xëy ci yow bu ngoonee ñu gont ci yow bu guddee ñu xëy ci yow journal bu ko soxla man su ma sañoon sax moom du génn ci image lu bari mhm. damay séentu président boo xam ne dangay toog ci tele bi doo ko gis waaye président boo xam ne huit heures vingt heures ba vingt et une heures toujours image bu président bi jàpp naa ne moom mën na ko dindi mën na làqu ci ginnaaw jiital ay techniciens yoo xam ne mhm. dañuy liggéey liggéey boo xam ne képp ku bëgg a def safaan boobu daña la sax waaye amuñu jot mhm. demal toog na jàpp naa ne ñaar yooyu justice bi ak presse bi dañu am impact ci askan wi lool ci ñetti at yi ñu dund daanaka nit ñi dañ koy dundee su boobaa jàpp nañ ne euh, lu bëri ci équipe bu gouvernement bii di ñëw hmm. am nañ yaakaar dana ci am ay ndam yu kawe kawe incha allah am na solo imaam jërëjëf ñu ngi lay sant baax baax di la gërëm xam naa waxtu wi moo jeex euh, sëñ Pape tàggatoo waaw alhamdulilah man de euh, xam naa ne li may tàggatoo rek mooy damay xaar man un gouvernement de défi mooy li Senghor échoué woon Abdou Diouf échoué ko Abdoulaye Wade échoué ko mag Macky Sall échoué ko ñoom nañu ñëw ngir dëggal seen bopp ngir réparer erreur yooyu muy un gouvernement de défi euh, léegi léegi yaa ngi wax ci un sénégalais boo xam ne exemplaire la parce que nit aussi su amee njëriñ ci askanam wax ci ay jikkoom ay jaar-jaar wàññiwu dara mm-hmm. muy Demba Ka mm-hmm. man je te un autre exemple d'un Sénégalais. Bo xamné 4 ans la def ci service. Andi fa innovation yu fa kenn musul andi ba Sénégalais yépp xamné ndekété li amna ndariñ ta xamuñu ko won. Muy secteur nettoyement muy UCG. Merci. Mass Mass. 4 ans la def. Cité na ko DTV émission wow. ndenkané 4 mois wala 5 ci ginnaw. 4 ans. Né xawma moy kan wayé UCG mom. Waaw man suma daf ma fekk service bi. Man fa la nek mm. mais suma bokk quatre ans la def ci service ku mel nonu jëlul toxal waaw manam soxla soxlawuñu jomaay day indil kuy remplacer ben masque am yu mel nonu pourtant waaw yoy yoy c'est important pourtant ma jox exemple <laughs> waaw nek na DG ba mom mo bind quatre lettres ne le président de la république man du ma sama mission moy ma fexé ba indi visibilité bu bees ba fexé ba valoriser wat le secteur du nettoyage ba fexe ba xemmem loo ndaw ji liggéey ne war naa jox dara mhm. ba tay léegi bachelier yi mhm. ñi bañoon balit mi ñoo fay dem di liggéey tey léegi étudiants yi ñoy xëccoog ñun balit allah mhm. loolu Mass rek moko réussir moy seul directeur bu ma gis ci balit bo xam audience bu mu am ak ministre wala président moy tax mu sol costume cravate foko fek jean lay sol sol tenue de travail boko fekke ci biir travail da ngay laaj kuy seen patron ndax gëj ngeen ko gis fekk na mom ngay waxal amna ben ben publicité bu mu def di balé ci mbedd bi madaani si fekk ko fa mu benn oto romb maas ko grand do ma may foofu cent franc yi ma jëndee ndox kooku ne ko mais xanaa amoo salaire mu ne ko salaire yi baaxul xam nga rek té mom mo jouer rôle bi hmm. ku ko gis da nga yakane ne travailleur fekk na directeur bi moo ko hmm. donc nit ñu mel nonu dañ leen di valoriser hmm. dañ leen di joxat seen responsabilité jox leen ay cër beneen bi aussi moy Omar bi mu remplacer sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam tok na nee c'est bi nek ci àll ba sax bu ko fit fité, wala ci suma responsabilité la aussi fay revenir at rek nouveau gouvernement bi di ñew ñaar mu ngi leen di xaar rôle ak responsabilité sen rôle ci askan wi ak ak ak ak yan responsabilité lañ leen ngir ñu dimbali askan wi hmm. gouvernement de défi bi nga wax di ci justice bi man bu ñu defee séparation des pouvoirs dans les président am ñu wàññi président dafa bëri doole. président Macky Sall li mu yoroon ci doole kenn xamut nu mu toll. donc loolu aussi il va falloir que impérativement ñu wàññi doole président ñu may parce que gars yi nee na pouvoir pouvoir moo man góoma ñetti pouvoir man li ma gëm mooy benn pouvoir mu exister waaye damaa gëm ne Sénégal am na cinq pouvoirs. exécutif dirigé par le président législatif mooy député judiciaire bi la justice mais dafa am un pouvoir muy le pouvoir spirituel cinquième pouvoir bi nag peuple bi donc ñooñu waruñoo réeroo dañoo war a bokk benn dénominateur commun moy cordon ombilical bi nga wax sank bi nga xamné mom mo wara doxal mbir yi kenn waru koo xëcc ba cordon bobu di tag donc dal war nañu unir suñuy force bokk nday bokk bay xamné ne objectif lañu am moy fexé ba Sénégal développer té lolu mëna nek ñuko mëna développer ñu ngi fi borom xam-xam yaa ngi fi ndaw ñaa ngi fi Sénégal manqué wu dara. donc li ko war a doxal nag mooy ñu am njiit loo xamante ne bi dafay tegu ci yoon. jiite ñu. jiituñu ci loolu ba pare wan ñu yoon yi ñu nit ñu tegu ci. donc loolu la oustaz. am na solo di kontaan. jërëjëf jërëjëf ci ci développement bi. macha allah am na solo ndax yéen toog ak yéen <laughs> waaw xam nga jeunesse bi. man maa leen fi représenté. la ay boromi xam-xam boo toogee ak ñoom la ma maas bu waxoon ne ma moytul ne. maas bu nee na ma moytul ne ay boromi xam-xam ngay toogal. <laughs> waaw beneen bi oustaz fa laay daanele gis nga yéen ñi gis nga gouvernement bi Bassirou daf cee war a may chance arabisant yi ñu ñun Sénégal ñi ñu tuddee ay intellectuel mooy ku jàng école mais billahi nit jàng na école ñëw bu gaggee yéen ñii nitu daara yéen a koy gàgganti donc cër bi ngeen am ci réew mi na ko Bassirou Diomaye fay valoriser waat valoriser waat nitu daara yi parce que tey li ngeen mën ci réew mi di defar jikko yi di teg jeunesse bi ci yoon fexe ñoom ñu xamaat seeni ay valeur loolu école bi jàngaleetu ko donc yéen nag gouvernement bi war na leen mën a bàyyi xel bàyyi xel kilifa yi mhm. donc Diallo maa ngi jéggalu jërëjëf sa loolu laa amoon ci kàddu vraiment di leen ñaanal yàlla daal am na solo am na solo jërëjëf Oustaz Saïd looy tàggatoo ana ah, di wax ne entre intellectuel ak diplômé dañ koy jaawle <laughs> diplômé mhm. mooy ko jàng ba yooyu kii diplôme bu ne am na ko waaye manduwul mhm. jubul xamul ràññeewul mhm. seexluwul boo mhm. koy diplômé mhm. intellectuel mooy ki am sens de construire mais nit ki nga xam ne fa li mu gëm mooy du xaar ñu ne ko defaral moom day jóg di defar te kenn du ko kenn du ko dara intellectuel mooy kii xalaatal ëllëg intellectuel mooy nan lay fexee ba xale yi doon toj xëy di tabax intellectuel mooy kii xamal doomu aadama bi moroomam xamal ko boroomam ndax kenn ku ne ci ñaari tëdd yooyu mooy ci jaag bi ak ci berceau bi ak diggante tëdd bi nga xam ne mooy ngay tëdd sa lal moo gën a bëri ci sab dund ñetti tëdd yooyu bu la fa nit fekkut amoo njëriñ intellectuel nag mooy def ci doomu aadama bi mu xam loolu intellectuel mooy

mënoo koo dindi ci cinq ans faw mu leer le sceau des prophètes mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo def jeexit ci àdduna bi ci képp koo xam dafa indi réforme treize ans la réformé màkk cinq ans mu teg projet kon jamono ji jamonoy setal la jamonoy joyanti la jamonoy jubal la jamonoy dëggal la jamonoy taqale la jamonoy tabax la boo jógee ci cinq ans yi di nga mën a liggéey te booy def yooyu may wax yëpp dafay ànd ak économie bi bu fekkee tëj nga buntu ki doon sàcc cinquante million par at boo ko tëjee cinquante millions yi dafay duggaat ci ceeb bi soo tëjee détournement d'objectif li xëyu ndaw yi dafay dox mooy ne booy réformer yaa ngi defar économie mais boo fekk boo jëlee sa jiite yëpp def ko ci lekk ak naan ak dund léegi di gën a yàqu te su boobaa train de vie bi du mën a wàññeekuwaat beneen bi ñu waat salaire yi mhm. conseil économique ah, salaire salaire seeni salaire ñoom ah, seeni salaire ñu leen defal xam nga lan mooy prestation nit ki li nga liggéey rek lañ lay fay ñu dem ci député yi session yi nga ñëw rek indemnité lañ lay jox Macky commencé na ko de dindi won na sen auto yi lolou jéego la bo xamni bo am solo la bo ñewul séance plénière ñew réunion bureau wéro do fayeku suba nuñ liggéel askan bi di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa taala mu ñu fekkee di nag xam ne réew dal c'est un ensemble daal c'est un ensemble lolou moy tax mu mëna jëm ci kanam kenn ku ne am nga ci lo wara def té bul xaar waxtaani mel ni yàlla fekk rek am na ci bu ko déglul Basiru di ko ci jëlali waaw lu ko mooy rek day nekk wax joo xam ne dañ koy wax mu jaar fii génn fële. Mm-hmm. na xam ne daal bu jiital xelam. bu mu doyloo xelum bopp ma xelu ñi ko wër. Mm-hmm. Euh, bàyyi xelu ñeneen ñoo xam ne nii wóoruñu ko waaye réeruñu ko waaw. voilà moo taxal góor ka taxawal gouvernement Seydina Mohamed bi muy gàddaay. waaw. mi ngi compétence mi ngi noonu. mi ngi noonu su ko defee. loolu ñu bàyyi ci xel xam ne am na ñoo xam ne nii. mën nañoo nekk conseil te du leen fay salaire. duñ ñëw pale waaye day am conseil yu leen di déglu. di ko ko dégtal. jàpp naa ne bokk na ci lii gën a gaaw pour mu réussir mandat bii. mooy bu bañ a teg bëtam xaat ci deuxième mandat. jàpp ne benn cinq ans bii rek laa war a participer ci sama dund ñu bind ma ci histoire su ma paree nag pare naa moo xam dañ may doy la waat wala doy la ma ko waaye du ma ut ku ma tagg du ma bañ ku ma mere lépp dana tegu ci yoon ndax li sonaloon président am Sall départ am xamul leen ne la boo xam ne bu woyoon ba tey dañ koy tàccu la dafa départ jëli kuñ ne ku jub la kuñ ne jub la mu indi teg xoolul militant am nga xoolul nangam nangam nangam ba muy fal procureur Alioune ndaw mu nekk procureur bi topp wàllu kër yi du militantisme de bokkuloon ci biir APR wala Benno Bokk Yaakaar na fi ngom kayta kazalik ana se mu juuf ca police kazalik noonu nga koy toppee toppee ko toppee ko benn deux ans jàpp trois ans yoo xam ne nii du ma protéger personne lay def waaye ba rapport na fi kayta ba génnee bañ épinglé ay ministre ñaan ko ah attention deuxième mandat bu ñu leen jàppee am nañu base politique mbir yee mujj ndeysaan ñu mbir yee mujj xom xormbet kàddu googu dégg naa ci jamono wax na ko donte benn mandat lay am dana redresser réew mi teg ci yoon président amoon na bés pas-pas boobu sëñ bi pas-pas boobu nag ku ko am lépp dana tegu ci yoon lépp ay tegu ci yoon gis nga douane bi li fay génnee ci milliards rek mën a defal Sénégal pooru ndakaaru bii li fay génn ci milliard bu lépp tegoo ci yoon sëñ bi loolu rek mën a defar Sénégal këru téléphone gu nekk Sénégal ñu naan mi ngi am ay bénéfice mille milliards ak yu kenn xamul wax ak wuy woote si bi yooyu yëpp yu mat tax xolaat la yoo xam ne nii mën nañ ci génne ay milliards defaree ko réew mi alaa kulli xaalis <laughs> réew mi moo sëñ bi patron de presse yi barki démb Macky Sall ne may na leen quarante milliards ci ay taxes yu ñoo war a fay wax wax yor say micro yor say pilim yoral réew mi ñeent fukki milliards sëñ bi yomb na ba day sëñ bi buñ fexee ba patron de presse yëpp di fay di fay li nga wax léegi ci journaliste bi moo koy réglé ñu bëri dinañ tëjji seen télé seeti luñ def ak seeni rajo sëñ bi ku jug am sa micro sa caméra sëñ bi ubbi sa télé sëñ bi di santage di Ah, mi ngi noonu rek ndax mooy moyen de chantage dong lay doon ba tax na daal yàlla na yàlla dolli sutura yaakaar yi yàlla na ko yàlla dëggal mais nag nañ ubbi seen nopp di déglu te nangu critique nag dañ ko nangu de yéen a fi ne yéen a fi may leen ko may leen ko nee naa loolu la ñu waxoon Macky may leen ko may leen ko xëy nag jël ko nag bañ ñu ko delloo waaw moom dañ ko koy abal rek Basirou nañ ko ko abal kenn du ko ko may may leen ko may leen ko nañ ko abal rek abalagum tuuti rek <laughs> te lii yëpp nag ci abal gi la gunge ko wax ko yoon yi mu war a jaar ay nitam di déglu Wow, ndax nak defe naa ñoom ku nekk war a bañ critique ba mooy leen ndax critique log yi ko fal Basiru critique logi, log yi ñoom ñoo ko fal <laughs> waaw dafa critique dañoo critique ba toog <laughs> kon nañ yaatal seen dënn nañ yaatal seen dënn de ndax arab yi ñuy wax an naqdu lil wusuli ila sahihi al maqal dañuy critique ngir jël li gën a baax boo waxee ma critique sa wax damay bëgg nga indi li gën a wér li nga wax foo ko ndax li nga wax am noo amut da ngay dem jeliwat li nga waxon dajale xol nangam indi li gëna wër wér loolu la arab yi wax ne an lil wusuli ila sahil maqal yalla yalla doli sutura yalla yalla defal ko sak mu nek sagu rew mi rew mi nek sagam ko defé ñepp japp ci rek waaw ñëpp ci ñepp japp ci li nga wax legi ne ñooñu non lañ def sa dom ba nga def réaction mu mel noonu loolu du basira koy régler ñun ñoy régler lu mel non infirmière bu Basiru pour mu régler ko du yomb kooku mooy jéem a xam ne réew mi léegi ñu ngi infirmière bi loolu dañ jàmbat mooy dañ la jël di la liggéeyloo embauché wuñ la fayuñ la salaire bu baax Basiru loolu la war a régler mais sa comportement correct di teel a xëy respecté malade yi loolu moom yow yaa ci war a yar wala ñu ne la fulkan la ca biti demal nga jaay ji këriñ wala nga seeti loo def mais doo tiimati ay malade di leen faj waaw bu demee nag bañ defaraat salaire yeeg condition yeeg embauché yi war a yar bi tamit dafay tegu ci côté loolu c'est important ci am réew c'est important bañ a xëy rek benn médecin bu sàggan ba rey nit ñu jàpp ko tëj ñu génn naan dañuy grève ak di manifester teg pression ñu xëy génnewaat ko ñeneen di wéy di ray raye mel ne la épo la xewoon ci hôpital bu Tivaouane négligence ba ay nit dee ci ñu jël leen jàpp di enquête ñu xëy naan dañuy banque seen loxo bañ a liggéey sëñ bi ñu xëy bàyyi leen ah mais sëñ bi nañ teg liggéeykat yi ci condition yi baax waaye ñoomi nañ tegu fu ñu war a tegu tubaab bi foofu lañ réussir lañ réussir sa àq dañ la koy jox ci sa liggéey mais nag après da ngay def sa liggéey tamit waaw loolu nag mën na nekk ña defar Europe ay góor la ñuy takk seen tubéy Sénégal gi tamit ñu koy defar ay góor la ñuy takk seen tubéy kese jànguñu lu ñu jàngul xamuñu lu ñu xamul barki démb la ñu doon jombal ci làkki tubaab ñu naan iskay di fitlasu mais tubaab yee ca France doom yi suñuy doom yi fa lañ sénégalais doomu senegal yi fa lañ juddoo mag ya fa jànge seen université yi raw leen tey li mu wax ne danañ jëriñee ci bitim réew aywa nañ jëriñ ña gën a xerañ bitim réew indi mais nag li buñ jëli ñaqarañ kese nañ jëli jikko jaag doxalin yaag droit ja indi teg mu ngoog waaw defee danañ ko wéyal suba gannaaw suba incha allahu taala lépp rek ngir bëgg gunge gouvernement bu bees bi ñuy bëgg a fal <laughs> tey maa ngi bind sama page Facebook di wax ñu ba ngi taal seen téléphone toog di xaar Basiru woo leen <laughs> <laughs> waaw ñu ba léegi xaar apéro Basiru waaye ba ne na am fayda ku doon xeex ngir Sénégal ba mu ko jël ku doon xeex ngir boppam ba mu ko jël waaw ah, ndax ki doon xeex ngir boppam mooy ki nga xam ne li taxoon muy sonn di wax ak waaxoo ko taal oto def carburant di takk ay bande fu nekk mu dugg fa mooy bëgg buñ faloo rek ñu jox ko te bari na ñu ko jege woon ñu jege woon ba siiroog ñu doon campagne seeni mbokk ñu ngi naan ah yow de xanaa war nañ laa jox dara sëñ bi ku ku ci xaar ñu jox la dara ne la ko xañ il faut mu tàmbalee foofu bu laajee mu war a jëlee ci gouvernement Macky Sall ay nit na ko jële indi man loolu laa gëm tey ki nga wax nii ku mel ne ko sant caam ñi kan mooy ñëw fekk ko foofu enquête ba gis ne am na fu mu fekkoon liggéey bi un yóbbu ko cent nga ñëw naan da ngay dindi Mass Thiam di indi Matar Sarr pour lan ndax Matar Sarr moo la neex jël Matar Sarr teg ko ci àll kutiya jël Mass Thiam bàyyi ko fi mu liggéey fekk yegguñ foofu noonu lay bañ a jël mbir mi moomale ko Massamba ak Mademba ak parti bi non Sénégal moo soxla fi mu toll nii na ñëpp simi seeni mbubb muñ soloon sol mbubbum senegal pour jëm ci kanam loolu mooy li jaadu bul nangu courant la non boo jëlee ci gouvernement Macky Sall wala nga jëlee ci gars yu Ablaye Wade yëfale kenn nangam gars yu système bi gars yu système ba jubadi mais ku juboon ci système bi indil indil bu amoon ñu la jege ñoo xam ne ñoo la doon tàccul di la xeexal ñu tëj leen sëñ bi te mënu ñoo yor postu ne leen waaw góor liggéeyal ngeen seen réew dem leen ngeen uti métier naa leen ci jàppale fexe ba ngeen am liggéey mais yenn bërëb yo xamné ne bi militantisme bu fa de ku a ministre ku wara yenn DG ku wara doon bi compétence compétence compétence le président Macky Sall suis slogan bobu la patrie avant la partie mom tamit moy valable ci jamaay la patrie avant la partie bu mu doon slogan nag na mu doone mais na doon réalité ndaw ñi gaay tégon ne ñi dañ la top rek di ne ñor nañu de ak ñoo ñor ñi ngi toog nii sëpp la di xool sëñ bi carte goo sànni ñu sànni geneen carte looy def xam nañ ko moo tax gouvernement bi jarul sax ñu ko yàkkamtee pour taxawal ko <laughs> nañu concerté wu wu ba ba togg lu ñor waaw bu laajee dajale ndaw ñi benn conférence wala loo ko mën di tuddee wala pour laaj leen seen xalaat ci gouvernement bi sax def ko ba nga xam ne boo tegee ñëpp dañaan gonga soo tegee ñëpp gis ne kat lii jëmul kër bul waaj daggal tëbal waaw su ko defee lañ doon wax ne ay discours mu nekk loo xam ne lu rassuré sénégalais yi la rassuré ndaw ñi discours yooyu ñu transformé ko mu nekk ay réalité